parce que war ñoo taxaw ñuy gazé suñu kaw war ñoo taxaw ñuy gazé ñëpp ba suñu mbokk journaliste di dund ni ni mel nii ki nga xam ne moo di Bamba Kassé encore une fois jug ngeen def seen liggéey ñi nga xam ne daanaka ñor kaaraange presse bi ngeen def seen liggéey lii métti na xool leen presse bi toujours ñun buñ génnee di ci am ay problème xool leen presse bi situation bi ñuy nekkee toujours ngeen yaakaar na lii di na ngeen ah, Khalifa oto yi mu doon euh, situation boo xam ne euh, mën naa ne métti na doon euh, lu metti doon doon lu doon lu doon lu métti doon lu métti gis ngeen député yëpp a ngi noonu gis ngeen ñoom ñëpp a ngi noonu mi ngi noonu ñoom ñëpp gis ngeen lii ni muy méttee lii métti na député yëpp a ngi koy xool lii métti na lii métti na day def liggéeyam day def seen liggéeyam gars def seen liggéey mais waruñoo chargé ci ci kaw presse du yoon presse ku fi ñëw da def seen liggéey yeewi askan wi ñëw woote li nga xam ne daanaka moo di ak déclaration pour defee ko seen siège fi nga xam ne daanaka moo di siège di ci fal presse taxaw ñëpp taxaw ñu chargé suñu kaw ñu dund ci lacrymogène ni dundin bu métti gis ngeen Khalifa Sall taxaw noonu yeneen député ñu ngi loolu moom moom lañ fa xamoon de xanaa ñu. non fa xam donc euh, ñu wax gi nga ñu ngi laaj sax du ne bu nekk yéen ñi euh, seetaan live bi am na bu nekk yaa ngi seen sama live bi Malick euh, groupe jeune reporter yi donc génn ngeen wax ci li ni journaliste journaliste yi noonu oto moo jaar ci kawam gars ñoo chargé li nga xam ne daanaka moo di ay lacrymogène ba oto jaar ci kawam métti na Malick bu nekkee yaa ngi may dégg ñëw leen ngeen xool li ni mel Malick bu nekkee yaa ngi ñëwal nga xool li ni mel ñëw leen ngeen xool euh, li ni mel euh, nekk na euh, situation bu compliquée lool gis ngeen bépp député yëpp a ngi noonu bu ngeen mënee xool directeur du témoin parce que ñun Yacine lañ fa xamoon Yacine nag moom mu tëdd noonu moom lañ fa xam xaa ñu jëmoo Malick Touré mi ni nga xam ne daanaka moo nekk ci group jeune reporter yi bu mënee xool ñi nga xam ne daanaka xool daanaka ñi nga xam ne ñoo nekkee ci bërëb boobu noonu gis ngeen euh, député seen taxawaay gis ngeen euh, député euh, seen taxawaay gis ngeen député seen taxawaay ñoom ñëpp a ngi noonu taxaw ba léegi di xool a nit ki nga xam ne mooy Yacine gars yi ñoo chargé seen kaw gaa yi ñoo chargé seen kaw mu nekk situation boo xam ne métti na lool. parce que naa la presse bi ku fi ñëw da ngay def la nga xam ne daanaka moo di sa liggéey gis ngeen Yacine ni mu tëddee noonu dañuy xaw a daw allo bi Yacine moom la moom la gars yi jaar ci kawam fii léegi nii député yëpp a ko wër nii euh, ginnaaw di jëmal xool directeur am moom boo ko mënee woo c'est bien ok c'est bon euh, gis ngeen mu euh, ki nga xam ne daanaka mooy groupe jeune reporter yi ñoom ñu ciy def liggéey bu am solo mu nekk loo xam ne compliqué na lool vraiment gis ngeen député ñoom ñëpp ngi noonu di taxaw félicité mais ñi nga bi mu daanu ñun ñoo leen ne leen bi am na benn journaliste daanu ah, euh, dafa mel ni sapeur sapeur ñëw na euh, sapeur euh, ñu ambulance bu ñëw ambulance bu ñëw a na benn ambulance bu ñëw pour mën ko jàpp yóbbu ko nekk na loo xam ne compliqué na gis ngeen député ñu ngi wax ak moom mais waa ji nangu leen faale est-ce que nekkul dañ dafa war a kum yóbbu am na yenn député yoo xam ne daanaka ñu ngi wax ak moom pour mu mën a ñëw yóbbu ki euh, nit kii nii donc dafa mel est nekkul dafa bañ nañ euh, notre ambulance boo xam ne dina mën a ñëw gis ngeen gendarmerie ba léegi ñu ngi taxaw jàkkaarloog nit ñi mu doon euh, lu compliqué vraiment nit ñi di ko dund niveau fi nga xam ne daanaka moo ci ginnaaw siège bu PRP nekk situation boo xam ne compliqué na lool lool gis nga daa mel nekkul oto Khalifa Sall lañ bëgg mu yóbbu ko mais est oto Khalifa Sall war na ko mën a a moo tax mu taxaw euh, jàpp ñaari euh, euh, loxo mi ci li nga xam ne daanaka moo di liggéey mi mu doon lu métti vraiment gis ngeen ñoom ñëpp député yi Khalifa Ababacar Sall la ñu noonu moom mu ngi noonu euh, taxaw vraiment doon euh, Cheikh Tidiane Youm tamit mi ngi noonu euh, député yi nga xam ne daanaka ñoo nekk ci parti boobu noonu di Yewwi Askan Wi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu taxaw vraiment jàkkaarloog ni ne mel pour xool Yacine mi nga xam ne daanaka nekk na journaliste reporter nekk fële nga xam ne daanaka moo di témoin web vraiment moom la oto jaar ci kaw mu nekk situation boo xam ne mën naa ne daanaka compliqué na lool doon dayo boo xam ne Oh, mi ngi tëdd ba léegi. nee na ñu bàyyi ko mi ngi tëdd ba léegi. tànk bi day métti bu leen ko tànk bi mooy métti tànkam bi mooy métti tànkam bi mooy métti tànkam bi mooy métti vraiment ngeen ko moom moo tëdd noonu Yacine député yi am na ñenn ñoo xam ne ñu jigéen ñi ñu ngi ko ñu ngi ko wër vraiment mu doon euh, loo xam ne mën naa ne euh, compliqué na lool sapeur pompier foo nekkee ñëwal nga jël si ki ni mel sapeur pompier foo nekk ñëwal nga jël si euh, ki nga xam ne daanaka gaañ nañu ko gis nañ ne yeewee askan wi ñoo waroon def seen déclaration bëggoon nañ ko defee siège bu pire mais ñoom Khalifa Sall Euh, dañu insister euh, ne dañ koy def see fi nga xam ne daanaka euh, moo di ci siège bu peer PRP Déthié Fall mais gis nañ ne depuis ce matin siège bu Déthié Fall dañ ko tëj donc gis ngeen ni mu demee toutes les internautes mm-hmm. donc les internautes gis ngeen ni mu demee wala yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel au niveau fi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV gis ngeen gis ngeen ni mu demee vraiment mu amul benn amul kenn koo xam ne daanaka jot na ci wax vraiment mu doon situation boo xam ne. <coughs> métti mm, na euh, loolu vraiment nit ñi di ko dund fii nii surtout journaliste yi démb rek maa ngi koy wax vraiment ci Feeling Dakar TV démb rek maa ngi koy wax démb rek maa ngi koy wax. démb rek maa ngi koy wax nañu bàyyi xel ak journalistes yi ndax liggéey bu am solo bi nga xam ne daanaka ñu koy def parce que gis ngeen ni ñu euh, dooree lacrymogène yi euh, député yi ko ñi nga xam ne ñoo di journalistes yi tey jii ni euh, bu nekkutoon vraiment bu bu nekkutoon ñi nga xam ne daanaka mooy ñi ko gis vraiment ñun ñëpp dañuy daw parce que ku ci nekk yaa ngi xooli fooy daw ak ku mën a doon ñëpp a ngi doon daw vraiment mu nekk situation boo xam ne mën naa ne compliqué na lool ñu leen moo tëdd noonu Yacine euh, moo tëdd noonu nekk ñu euh, ngi koy muur parce que tàngoor gi vraiment ñu ngeen ñu taxaw fii war ko yëpp ay euh, député lañ ñoom ñëpp ñu woon pour def li nga xam ne moo di seen déclaration. salaam. Oh, xoolal kay nee na micro dafa war di vraiment mu doon loo xam ne métti na tey jii ku nekk bul xam lan lan lan lan ngay dese wala ku nekk bul xam lan ngay waddalee xool leen jaas yi ni mu tëddee ñu koy ëpp. nga yaakaar ne lii yoon la. doy na waar lii métti na si jigéen doy na waar euh, suñu euh, suñu suñu jumtukaay yi xam naa ne moo xaw a tàng tuuti il faut que ñu jéem a xool ci kër gi euh, c'est important balaa ko ñuy gën a mën a fay te bu ñu fayee rek xam naa ne du baax ñu dem fi nga xam ne daanaka

Euh, gis ngeen euh, ni mu deme donc père dañu bëgg a jàngee mën naa jàpp yow donc on est obligé génn gis ngeen lacrymogène ni euh, ni mu commencé def def fii député yëpp daw nañ député yëpp daw nañ député yëpp daw nañ député yëpp da ñu ngi ñëwa ah. député yëpp daw nañ député yëpp daw nañ vous voyez les images Birame Souleye ngi noonu kii di député yëpp daw nañu parce que situation bi compliquée di am na ci nekk ci oto bi Birame Souleye ngi noonu yeneen député yi ñu ngi noonu gars yi ci weeru koor gi yu doon la lacrymogène gis nga ni dañoo bëggoon def conférence de presse ñoom dañu bëggoon euh, def la nga xam ne daanaka moo di seen conférence de presse ci biir siège bu PRP policier xaw ma fees dell euh, policier chargé seen kaw gendarmerie du moins euh, chargé seen kaw dóor la nga xam ne daanaka moo di lacrymogène yi fi nga xam ne moo di siège bu Déthié Fall gis ngeen de donc les internautes gis ngeen gars yi ñu ngi ñëw gars yi député yëpp ñëpp a daw amul ku des vraiment parce que euh, li gars yi di dund euh, métti na gis ngeen euh, beneen député bi métti na frère muñ leen weeru koor gi ñu doon lacrymogène métti na gis ngeen beneen député baa ngi noonu bokk ci parti boobu Yewwi Askan di def seen <laughs> Khalifa Sall wax na waxoon na ko Khalifa Sall nee na il faut que ngeen pour sinon gars yi dinañ charger seen kaw donc Khalifa Sall ni mu ko waxee noonu la amee gars yi ni ñu chargé ci kaw presse bi chargé ko ci kaw député yi Euh, ñi nga xam ne daanaka ñoo nekkee ci parti boobu di yeewi askan wi gis ngeen benn député moo taxaw noonu donc doon na lu compliqué gis ngeen les autres députés sont là les autres euh, députés euh, sont là mu doon lu métti doon lu métti ngeen koy gis fi nga xam ne jusque ni mooy siège bu PRP siège bu Déthié Fall gars yi dóor nañu lacrymogène gis ngeen les autres députés ñu ngi nii. ñi nga xam ne bokk ci parti boobu euh, di yeewi askan yu waroon amal li nga xam ne daanaka moo di as manifestation euh, tey ji wala marche pacifique gis ngeen euh, gars yi ñu ngi noonu yeneen député ñu ngi noonu naan dinañu biral euh, defaat la nga xam ne daanaka moo di euh, seen déclaration mais xam leen ne fii di siège bu ñoom Déthié Fall euh, policiers yi chargé nañu seen kaw dóor la nga xam ne daanaka moo di lacrymogène yi gis ngeen député yi ñoom ñëpp ngi noonu taxaw parce que ñoom ñëpp taxaw parce que li dafa métti nga xam ne daanaka moo di lacrymogène chargé ko ci kaw presse bi nekk loo xam ne jaadu na nekk na loo xam ne métti na juste pour mën a fee def li nga xam ne daanaka seen conférence de presse fa li nga xam ne moo di ci siège bu Déthié Fall mu nekk situation boo xam ne bul am am am mu nekk situation boo xam ne euh, mën naa ne euh, compliqué na lool euh, nit ñu di ko dund fi nga xam ne daanaka fi gis ko ni mooy siège bu Déthié Fall xam naa ne député yooyu ñëpp a ngi nii du ñàkk ne léegi léegi dinañ di xool beneen déclaration gis ngeen fi nga xam ne Cheikh Tidiane ñun ko dawee rafale ko mu dugg ci otoom gis yeneen député tamit situation bi. amul ma dem te ñëw. Uh-huh. affaire bi lii la. Uh-huh. exemple empêchent les de communiquer. Uh-huh. mooy Sénégal sur le territoire du Sénégal amul. wo. non nañ dem nañ booy nañ mën koo nañ dem nañu ray sax dem booy nañ dem. benn benn journaliste gars ci kawam benn journaliste gars mbëkk la gars mbëkk noonu. booy nañ dem nañ mobiliser waaye kaara ñu dem nañ dem. suñ benn confrère la oto jaar ci kawam nañu dem ñun ñëpp ñu dem bu ñu ray ñu ray ñu. nañu dem benn oto moo jaar ci benn suñ benn concert lii métti na lii métti na métti na lii métti na ñu dem. alors nañ mobiliser bu ñu saata ñu saata suñu kaw nañ dem garaaw. koor gi métti na mais mënuñu mënuñu def li suñu frère taxaw. waaw dama yegg donc am problème. mais kaale ndam bu dee kaale kaale kaale ñu dem kaale. waaw muy bëre kaale. donc ñu dem suñ benn concert boo xam ne door nañ ko li nga xam oto moo jaar ci kawam ñu dem xawali xam kan gis ngeen si d'accord waaw nañ dem nañ dem kaa leen nañ dem nañ dem waaw waaw nañ dem kala kala Oh, oh, oh Yacine. Yacine la. gis ngeen Yacine la euh, nekk témoin euh, témoin bi euh, moom la oto ci kawam ginnaaw bi gars yi doole la nga xam ne moo di des lacrymogènes gis ngeen ko moom la ñu tëddal noonu moom Yacine moom la tëddal noonu Yacine gis ñoom Fadel. donc groupe jeune reporter yi gis ngeen ni mu demee euh, toujours presse bi euh, li ñuy dundee les jeunes reporters gis ngeen encore une fois ni ko gars yi di dundee Yacine waaw waaw waaw tënket euh, tënket aca son journaliste bi def liggéeyam door ko li nga xam ne daanaka ba bañ dooree la kene machine yi la oto jaax ci kaw gis ngeen ko moo tëdd noonu dañuy xaw a moytu la nga xam ne moo di image yi mais dekk na loo xam ne compliqué na gis ngeen ko moom moo tëdd noonu moom moo tëdd noonu Yacine nekk fa li nga xam ne moo di témoin euh, wépp Khalifa Sall euh, mi ngi noonu di ñëw Khalifa Sall voilà mbokk internetu Feeling Dakar yi ñu ngi leen di char bu baax a baax a baax euh, tey Nous sommes des, nous sommes des députés du peuple, on ne

ne ko gisandoo noonu euh, gis ngeen lacrymogène bi fu mu dal ci ci kër jàmbur mi ngi nii dalaat dóor nañ ko ci oto jàmbur bi dina naan lacrymogène bi Ablaye mi gis nga na ñi ngi gazé waat euh, fii bi nekk yëpp ba kenn mënatul nooyi ci secteur yi fii gis nga ah, Ablaye grenade bi dóor nañu ko ci oto jàmbur la daal di dal di daal te loolu mën na andi jë gis nga grenade yaa ngi noonu di wadd si xol ci kër jàmbur gi la wadd ci kër jàmbur la wadd ci kër jàmbur la wadd Ablaye affaire yi commencé na commencé nañu tirer commencé nañu tirer ci kaw presse bi ay grenade lacrymogène tey li ñuy dóor yépp ci ay kër jàmbur lay dugg te bu duggee ci biir kër jàmbur yi maara dee taali mun na andi musiba Ah, metti metti fa metti libaas ah, déggal kàddu yooyu notre frère libaas saa ñuy dund lii ci Sénégal kañ lay jeex kañ la lii kañ lay jeex kañ lay jeex lii c'est pas normal barki Seydina Mouhamed lii waruñu ko nangu mais ana njëriñu carte presse yi ana njëriñam ñun ñun quatrième position ñun ñooy quatrième position mais ñun am seen njëriñ mais presse en ligne lan mooy problème lan mooy problème bi ñuy gaz yi duñu dóor ay lacrymogène suñu liggéey lañuy def ñu ànduñu ak kenn suñu liggéey la ñuy def nañu bàyyi ñu liggéey suñu liggéey pare nan nag pour dee barki Seydina bu nu deewee ci liggéey bi ajat xoolal bëgg nañ du ñu daw du ñu daay barki Seydina moo xam voilà léegi noonu ginnaaw ba gis nga ne li waa notre frère kàddu yi nga xamante ne yëkkatu na nga gisee lii ñuy dund nii jamono ji Sénégal moom mooy euh, mooy lii c'est-à-dire xam nga boo koy calculer day nekk ñetti yëf yu bokkul uh-huh. benn tu dis à une personne mënoo def euh, manifestation donc nit bu mënul def manifestation da nga ko toogal sa kër këru parti politique permanence am la tu lui dis aussi amuloo droit dugg sa permanence ñetteel bi les journalistes qui viennent couvrir nga ñëw nga gaañ ci quelqu'un de façon aussi flagrante que ça parce que il n'a elle n'a absolument rien fait sinon de venir faire son métier cest à li ko la constitution wax mu def ko mooy wàcceel ci biir dëkk bi doo gisee information indi ko waxtu muy les gens chargent te y absolument aucun danger on était combien de personnes tu viens nga ñëw def ko xale bi gaañu na on ne peut pas dire ce qu'il a parce que fekke nañu directement lan moo ko lan moo ko dal ñi donc c'est inadmissible ce qu'on est en train de faire donc vous attendez juste que ñu évacuer chargé waat ci kaw nit comme si ça servait pas justement de leçon il faut quand même qu'on arrête dans ce pays là cest à dëkk nekk mun na fi ne mais mënoo ñëw tëj permanence jàmbur kenn mënul tëj permanence jàmbur kenn mënut a perquisition kër jàmbur nous sommes dans un pays on veut faire la négation de tous les droits les droits des journalistes les droits des partis politiques les droits de l'opposition la liberté de manifester la liberté d'aller et de c'est quand même pas possible c'est ça le problème doy na waar jamono ji la ñuy signaler ñu a am na keneen ku ñu gaañ ku koo xam ne jigéen la te vraiment ay jigéen la ñuy jël yëf yi di ko dóor ci seen kaw vraiment mu nekk loo xamante ni euh, doy na waar trop bu ñu demee ba presse bi mënatuñu def seen liggéey carrément dañu leen di. mais situation bi doy na waar trop. de même na dayo parce que uh-huh. bu ñu demee ba presse bi. Uh-huh. ñun nga xamante ne ànduñu ak kenn suñu yoon nekkul ci kenn. dañuy def suñu liggéey. Uh-huh. ñuy gazé ay grenade recrutement di gaañ ay yaay faal. te te c'est la première fois. ñu koy lii nii mi ngi commencé di bëgg bëri lan moo tax acharnement bi nga xamante ne mi ngi dal ci kaw. kon ñun suñu suñu carte de presse yi nga xamante ne moom lañ ñu exiger. Euh, ça sert moo man moo ma jaaxal. dëgg ne fa yàlla bu ñu demee ba. Euh, presse bi mënatuñu amal seen liggéey kon ñun carte presse yi nga xamante ne moom la ñuy exiger dañuy laaj lu la euh, mooy njëriñ kon tey di presse bi war a toog defaat benn defaat defaat jàngat xam nan la ñuy doxalee parce que lii nii nag mënul continuer ah vraiment euh, ñu ngi seen tamit Malick Gakou moom yëf yi xaw na ko sonal tuuti ñu jéem a jege rek Malick Gakou jéem ko am président ñu ngi lay siyaar. delloo naa leen siyaar. donte ni ngay dundee yëf yi métti na jamono ji ah, lan rek nga ñu mën a wax. mais li am ni gis ngeen ko xam ngeen ne cette situation là elle est insoutenable parce que Sénégal lañ nekk quand même. Et qui est censé être un pays démocratique. Et les leaders de l'opposition. témoignent leur affection par rapport à une accidentée. Et on nous a trouvé sur place pour nous gazer avec les journalistes. Bien évidemment, nous dénonçons euh, ce genre d'action avec la dernière énergie. Mais cela ne nous empêche pas et ne nous empêchera pas de lutter pour le Sénégal. Je crois que nous avons toujours dit que, au prix de nos vies, nous allons défendre la démocratie sénégalaise, nous allons défendre les libertés. Et aujourd'hui, nous tous, vous, surtout les journalistes, vous avez nous ont attaqués euh, de manière tout à fait illégitime. Mais nous, nous ferons face. Nous avons mal, mais nous ferons face. Et le Sénégal n'a pas de prix quand il s'agira euh, de le défendre. Et nous serons au premier rang de ce combat-là. Et cela avec tous les leaders, tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi et des forces vives de la nation. li am fii tey li am fii tey ñëpp a ko gisandoo. xam ne ñu ngi taxaw euh, ci Euh, une femme bi nga xam ne nii oto daf kon mbëkk leader yëpp ñëw taxaw di ko témoigner leur solidarité